di ñu jóge sa kër di fi liggéey maanaam di fi jóge sa kër di tudd yàlla di liggéey kër ci liggéey si sama kër gii mu ne moo leen may loolu jóge gi ñu jóge fii ci kër Cheikh Ibra di liggéey di tudd yàlla di àgg këram kër sëñ moo leen may daraja jooju nee na Cheikh Ibra nee na ma wax ko sëriñ Touba nee na teg ma ci mbaq teg ma foo xam ne bu fa sànni ma foo xam ne bu fa jëfal yàlla dootu fa yóbbu nit moo tax sëriñ Touba ni Ibrahima Fall ka damaa rëcc ndax ma ko sànni bu fa bu xaayu ko woon ba keroog saare taxu tax mu àgg suuf Cheikh Ibra nag moom ci boppam wax nañ ni fii ci kër gu mag sama maam Adama Kanji moom ma ko nettali moom ki ko nettali si Ousmane Kanji magam la nee na dani ko Cheikh Ibra dani doom baa lu ma waxal lu ma waxut ndax doom waxal ma lu ma waxul kat day tax dem safaan ba maa waxal Cheikh Ibra loo xam waxu ko moo waxtaan Cheikh Ibra dafa xaw dewaar waaw ndax ku kuy liggéey Sëriñ Tuubaa rek Cheikh Fall tax ndax Cheikh moo ne Sëriñ Tuubaa yewa su ko nu woon yewa ba pare fekk euh, yëf yi doonu ko day daal di metti waaye da kon yeewa far lépp di moom waaw kon ñu ngi sant bu baax tey jégaluwaat wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu xanaa ko ngeen tàllal soxna si ñaan rek aju yëpp faju ak yokkute sant la bu baax julli ci yonent bi sant sëñ Tuubaa Seex Ibra Faal ñu ci boole ndax lii moom baax la ci fii ngeen ko defee muy togg ay ndog di joxe loolu baaxu ko Seex Ibra Faal la sant nañ ci bu baax itam nag ñu ngi leen di ñaanal ci ndigalu soxna si yàlla yokku leen ba ngeen yëg ko bu baax a baax a baax ba ngeen ci man ren bu déwénee ngeen mën ci lu ko ëpp ba yëg ko ni ngeen ci dugalee Seex Ibra ren bu déwénee yàlla na ci dugal loxoom ba li ngeen def ren muy asakay li ngeen def ci barke sëñ Tuubaa ak Seex Ibra kontaan nañ loolu sant bég nañ lii ngeen defit nag lu baax la ndax togg ñam joxe moom dara gënu ko ci jaamu yàlla kontaan nañ bu baax jërë ngeen jëf sant nañ bu baax di sant suñu mbokki taalibe yi ñu dëkkal itam ndax ñoom ñëpp dañoo woote rek ñu daal di ñëw jàpp ci bis bi taxaw kon nag ñoom tam sant nañ leen bu baax may na mu leen di gërëm di leen sant parce que nee naa lii non seulement te mënu ko xayma. loo loo kii loo bari bari xel boo ñëwee kaso fi da nga koy bàyyi ci biti. loo bëgg bëgg jabar boo ñëwee fi bàyyi jabar ci biti quoi. am am teranga boo ñëwee bàyyi ko ci biti quoi. donc moo tax bu ngeen ñëwee si lii amuñu lu seen leen di gërëm ko sant. mbokki téléspectateurs yi seetaan 2STV gis ngeen ko marmite du kër bi ñu réservé la région de Diourbel nekkoon na marmite bu am solo ñu nekk fi nga xam ne nag mooy kër gu mag kenn ci nag ñi nga xam ne bokk nañ ci ñi contribuer ci réussite marmite bi fii ci Diourbel di laxaat ñu jox ko rek mu wax ñu naka la jëfee li nga xam ne mooy jëm ci wàllu organisation bi. ñu siyaar ñi nga xam ne ñooy seetaan 2STV ak ñi nga xamante ni ñooy toog heure bi yëpp di xaar marmite du mu jàll. di leen siyaar di leen wax ne Marmite du Cœur Diourbel la nekkoon tey lépp dans le cadre affaire solidarité bi nga xamante ni moom lañ engagé di ko def te Sénégal yëpp teg ci seen bët dëkk nag mënul développé wu entre entraide wala solidarité moom mooy première source de développement. organisation bi nag ñi ci jàpp ñëpp ñu leen di duñ leen sant sax parce que jox lo def loolu nekk na loo xamante ni borom bi moo lay fayal boppam daal donc ñi ci jàppoon nekk Diourbel nekkoon. waa Marmite du Cœur ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen waan di leen ñaanal liñ mën ren ñu mën ko daaw ñu mën ko dewen mu nekk loo xamante ni dañuy gën a gis yeneen ba yu gën a sori yu gën a kawe li nga xamante ni gis nañ ko fi tey. jàngat bi ma ci am rek mooy euh, dañuy kontaan di di di bëgg ci ci ci journée bi parce que déjà avant tout man dama am ay mbokk yu bëri Jurbel donc euh, satisfaction la su ma ñëwee fii gis samay mbokk ñu jàppale ma ci bés bi. satisfaction totale la euh, dañuy sant tamit parce que defe naa booy dox ba ba dajeek doomu maam Cheikh Ibra Fall da ngay defe naa boobu tamit satisfaction bu bu yéeme la te vraiment gis nañu soxna soo xam ne yéem nañu lool kontaan nañu ci ci ñu ko rencontré waxtaan ak moom mu ñaanal ñu kontaan moom tamit rafetlu loolu suñu suñu suñu suñu ay tànk ñu defee ko ci buntu këram defe naa comme comme Moustapha di waxee. foofu foofu la tàmbalee bala bala ñoom ñoo njëkk a tàmbale loolu ñun ñu topp seen ginnaaw donc defe naa am na solo loolu satisfaction la tamit ñu ñaan vraiment fépp fu ñu dem rek nit ñi yaatal ñu dimbale ñu ci liggéey bi ci liggéey bool yeeg ci liggéey cin yeeg vraiment des fois sax dinañ am ay petits problèmes parce que euh, dinañ rencontrer quelques difficultés nit ñi bu leen ñëwee di leen indil euh, le maximum duñ la jàppale ci le minimum c'est-à-dire les petits détails cin yeeg bool yeeg yooyu quoi. di remercier aussi tous les les les sponsors di remercier suñu xarit yëpp yu ci def vraiment euh, maa ngi remercier Ahmed Amar euh, moom tamit jàppal nañu ci bés yi remercier Grandoy euh, maa ngi remercier Jacques bu NMA di remercier suñu sponsors yi ñi nga xam ne waa EXP ñu jàppale ci ci ci ci ci logistique waa 2STV waa Orange Orix vraiment ñëpp ñoo xam ne ñu ngi ñuy woo Alsaan wala Moustapha di ñu jàppale naan boo leen ñu mën nañ leen defal lii wala boo leen ñëwee leen defal lii wala sax woo ñu sax du ñu encouragé sax loolu je pense que c'est des sponsors euh, moraux donc am na su solo ñu ngi Sénégal bi yëpp di remercier waa diaspora bi tamit ñu ñuy jàppale di ñu woo di ñu yónnee ay mail di ñu yónnee ay mail d'encouragement ñoom ñëpp Sénégal lii rek lañ fi am bu ñu paree ci lii ñu def ci leneen dugg ci leneen loo xam ne tamit c'est pour le Sénégal tey bésu cant la bésu cant la bésu mbégte la parce que comme ku santul doomu aadama doo sant suñu borom donc moo tax kàddu cant yooyu alsan di yëkkati yi dafa am solo lool beneen bi mooy fii ñu nekk da di bërëb bu am solo surtout fii ñu taxaw ndax bay ci ci ci benn benn ci bayit yi ku tedd ki bind di lil Moustapha nawaytulaayu jaddidu sunnafal xaraa wa inni ahmadu dafa feeñ fii ndaxte fii ku tedd ki dafa am nu mu fi diggaaleeg rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam illaa yaxaadalaahu maalam yakkuni wala yakkuni abadan limul kini loolu mooy fay bi suñu borom moo jël ku tedd ki def ko ni mu ko def kon tey bu ñu ñëwee Marmite du Cœur Diourbel njaareem njabootu sëñ Muntaxa bi yëpp yaatal ñu ba ñu am fi liñ fi am ci ay xéwal dañ koy sant ku tedd ki kon tey bésu cant la maam soxna Oumy Fall nag ñun mënuñu loolu ñaanal ko mu yàgg fi lool yàgg fi lool suñu borom bàyyi ko suñu kanam ndaxte jëmm la joo xam ne ku ko ne jàkk xam ne chevre kese la donc tey bésu cant la bésu mbégte la moo tax ñu denk ko njabootu Sénégal waxuma sax Marmite du ñun ñi ñëw mais ñun ñi ñëw dañoo ñëwaale ñi ñëwul moo bi ñu jàkkaarloog soxna si ñu dénk ko njabootu Sénégal jeunesse su Sénégal parce que maanaam comme ni ko ku tedd ki di waxee rek seytaane xëy na mën na ko jiitu ci xel yi waaye moom mu jiitu seytaane ci xol yi kon dañuy ñaan suñu borom ci barke weer wu tedd bi mu bàyyi fi soxna si mu yàgg fi lool lool lool te aujourd'hui nu sommes deux porteurs de voix mais fu ñu dem rek message bi ñu fay indi du message u Marmite du Cœur message u jeunesse fu ñu mënti dëkk nag yaa xam nga nekk jeune bi nekk Casamance bi nekk Louga bi nekk Tamba bi nekk Saint-Louis ñun fu ñu dem jotee dinañ la waxal moo tax ñuy profité ci occasion yi mel nii di ñaan suñu borom wàcce yërmande il xam jamiyel waraa bi ku tedd ki bind nekk ci ñun suñu borom yërëm ñu dimbali ñu jàppale ñu ba lépp li ñu mëbët ci ay projet ak ay yéene pour suñu njabooti bopp ñu mën ko eggali. Moustapha wax ji rafet na chers amis téléspectateurs de la 2STV li leen lañ fa indiwaloon ci Marmite du Cœur réservé à la région de Diourbel exactement. à Njaareem ñu jox leen daje Saint-Louis jërë ngeen jëf.